recrutement dina am ci altine bii di ñëw la kar ci weer bi ñu nekk nii waaye euh, liste bi génn na depuis altine ba le fees mais li ñu ci jaaxal mooy euh, ñun silmaxa yi bokkuñ ci liste bi te pourtant man ak euh, sama mbokk standardiste yi ñun defaroon nañ suñu dossier ba jox ko ministre de la santé moom tamit signé woon na dossier bi aussi ba jox ko waa ministre de la ministère de la fonction publique alors kon suñ ñëw ba tay ji liste bi génn tay ji suñ ci suñu bopp daf ñuy jaaxal léegi nag ñun wax dëgg yàlla moom bëgg na ci ay explication ndax euh, diplôme yi ñeneen yi am ñun pourtant ñun euh, moom lañ yore euh, y a aucune différence ah bon en tout cas injustice bi moom bu dee réparé wu ñun pare nañ vraiment pour passer à la vitesse supérieure mooy pare nañ pour les vraiment sacrifier suñu dund ndax jaar na ko dañoo bëgg a jot suñu droit waaye tamit euh, dañoo bëgg jëriñ suñu askan vraiment euh, dëkk bi jaral nañu ko ci population lañ bokk donc on bokkuñ ci beneen askan ko